bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk julli ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen balu àq di leen baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm àdduna ak laaxira eh, defal ñu tawfiq ci sunu biir ak ci bitti ak jaamu ju ñu nangu insha allahu eh, tey nag di ajjuma yemook fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet ñu nekk ci fukki fan yu màgg yi te mooy fukki fan yi tabaski yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te defal ñëpp tawfiq buñ ko fekkee insha allahu fekkee yeneen i at ci kanam sax eh, di ñëw rekk ci taxawaay bu gàtt ngir waxtaane lu jëm ci sunum réew ak yàqkat yi nga xam ne ñoo fi nekk te mosuñu fi jóg te lenn rekk ñor leen mooy yàq pas-pas bi nit ñi am ñu fexe ba ñu am beneen pas-pas xalaat yi nit ñi am yariñ yi nit ñi am doxalin bi nit ñi am ci réew mi ñu fexe ba soppi doxalin woowa mu nekk seen gis-gis ñoom yemuñu ci ñun lii lañ gëm lii lañu lii lañuy def wala lii lañ gis nii lañ gise déedéet waaye ku gisewul ni ñu gise ñun ab dof nga nit ku génn nga daanaka ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëraloon nitu bidaa nga kuy topp say bànneex nga ak koo mën a doon nag yow moom nga doon ak képp koo mas a jokk ci moom maanaam ab sëriñëb wala ca kaw a kaw fu mati eggi maanaam ñoo ñëpp ay nit ñu sànku lañu ñu doon mooy kañ su fekkee ne suñu gis-gis ñun amuleen ko loolu mbooloo mu mel noonu ci am réew wóorut baaxul li baax mooy eh, tasaamux qabulu tarafil aaxar maanaam man maa ngi existé nii laa gëme ma doxalee noonu surtout ci diine nga xam ne léeg-léeg wuute mën na bari waaye aw nit woo xam ne wuute li muy bari bari ñoom li ñu li ñu def walla li ñu gis wala fi ñu jaar foofa rek kay yoon weneen yoon wu nit soobu yaa ngi ci cànkute waaye itam leneen lu waay wax lu dul seeni wax ñoom waxoo na waxoo dëgg waxoo ak mbaax lu waay di def lu bokk ak bokkut ak la def ñoom loolu jubul wérul li wér mooy li gëm ñoom li wéer mooy li ñuy wax li wéer mooy li ñuy def lii sunna mooy fi jaar feneen du sunna nag te loolu nag at du caagéene lu ñuy gëm la di ko def déedéet waaye lu ñuy wax la di la ko attaqué yow am cong moo xam ne mënul dakk la loolu mooy diine ji nga xam ne moom lañ gëm di ko doxal mooy toujours ñun li war a nekk suñu xeex mooy xeex ak ñeneen ñi maanaam ñi ñu bokk réew mi toujours nañ leen di attaqué ci liñ gëm nañ leen gëmu leen dara toujours lañ fas nañ leen loolu bidaa la toujours seen doxalin nañuy taxaw di ko ŋàññi toujours bu ñuy jàngale nañ koy ŋàññi bu ñuy xutba nañ koy ŋàññaale bu ñuy Euh, euh, euh, luñ mënti wax bu ñuy jàngale bu ñuy waaraate bu ñuy tafsir dégg nga luñ mënti wax lu mu mënti doon nañ leen ca sànniwaale ay xeer nañ leen ca xaañaale nañ leen ca cong songaale cong boo xam ne daal nii lañ koy dëkkee ñun bu ñu am ak noppalu waaye itam bu ñu am kii loolu nag war na am ñaari mbir war na am taxawaayu ñi ñuy jaamaar lool waaye itam war na am maanaam Euh, euh, euh, delloo bu ferme ci liggéey boobu ndax liggéey boobu kët lu ñu tracé te ca la ñuy jaar te ña ca kon nag ñi ñu jaamaar lool taxaw seeni kanam itam war nañu am farlu gu toll ne taxaw ci seen kanam waaw li sëñ xaali doon wax ne wahaabi yi bu fi bu fi yëngatu ma damm tànkam loolu mooy li ku nekk war a fas ci ci xolam wax ko ci wax ko nag ci ci làmmiñub xam-xam wax ko ci làmmiñub dëgg wax ko ci làmmiñub defand mag ñu baax ñi fi nekk su dul loolu ñun ñu ñuy saaga bis bu ne ndax saaga mënul weesu ñun la yow li nga nekk bidaa la boo deewee sawara nga jëm saaga mënul weesu lépp looy def ñu génnee ko ci cadre l'islam booy sikkar booy tudd yàlla booy julli booy naafila lépp loo xam daal sa defin la yow loolu bukkul ci diine ji kooka képp ku la ko wax te ragalu la taxaw jaamaar yow di la ko wax loolu moo gën a garaaw foofu mu taxaw dina la saaga te man loolu laa jàppe saaga moo tax ma jàpp ne ñépp ñi taxaw ci minbar yi di wax lu mel noonu ci gaa yi nga xam ne ñun ñoom lañ jaamaarloo ñooñu ay nit ñu reew lañu ñu xamadi lañu ñu yaruwul lañu même su fekkee ne sikkim yi day laal ay dënn kenn ci ñu reew ñooñu xamadi ñi daf caa bokk ku ñuy wax Omar Sall ñépp xam nañ ko te kenn xamu ko ci lu dul arrogance kenn xamu ko ci xam-xam kenn xamu ko ci ak mbaax kenn xamu ko ci nangam lañ ko xam mooy jaamaarloog nit ñi di leen ñi lan lay ñi nag li nit ñi gëm seeni pas-pas seeni gisin seeni doxalin seeni yarin bi nga xam ne ci leen leen yar teg leen ci loola lay saaga bis bu ne loola lay ŋàññi bis bu ne la chaque su fekkoon ne amoon na xam-xam su fekkoon ne am na tuuti ci xam-xam dana am beneen doxalin ndax doxalin boobu daf cee ràññeeku ci biir ñi nga xam ne nee nañ dañuy woote moom daf caa ràññeeku ci ñàkk yar yar ràññeeku ca ci ñàkk xam-xam moom gone la ci xam-xam même bu fekkee mag ci ay at gone la ci xam-xam gone ci xam-xam mooy koo xam ne loo wax du nekk noonu boo waxee ab xadis ne xadis bi nii la dañuy fekk xadis bi tëddewul noonu soo waxee ne xadis bi mi ngi ci téere sàngam du nekk ci téere boobu soo jàngee ab aaya ni nga koy jàngee du nekk noonu ab àtte soo ko waxee du nekk noonu loo wax day wuute te ngay ngàlleeku nag di tawwi sa gémmiñ lu nekk nga wax te fekk li ngay wax lépp luñ ci topp day day nekk safaan maanaam aw fen lay doon kooku lu mu kawe kawe di yuuxu taxul mu nekk dara gone la ci xam-xam pour mu xam ne gone la ci xam-xam nag day taxaw ci kanamu gor ñi mu wax ak ñoom ñu wax ak moom ñu laaj ko mu tontu su boobaa lay xam ba xam moom fer na ijji wala feragul lii mu def nag reewande mënu ko weesu mooy nga wax ne <clears throat> waxtaan bi ngay def dangay wax sufiyanke yi lan lañ nuroo ak nasaraan yi chrétien yi lan la sufiyanke yi nuroo ak ñoom kon sufiyanke yi ñoom ña nga ci beneen diine bu dul lislaam te loolu daf ko saaga ñépp képp ku jàpp benn tariqa bu mu mënti doon yow yaag nasaraan yi yéen yam te ci biir waxtaan wi daf caa dëggal ne nasaraan yi yoo ñu gën xam nga reewande gu mel noonu man jàpp naa ne ay waxi kese mënu koo faj ay waxi kese mënu koo faj am na beneen doxalin boo xam ne moom lañu war a doxale ak Omar Sall ndax amul kenn ku koy défendre wala ku taxaw ci kanam ku ne Omar Sall fer na ijji ku ne Omar Sall xam na dara waxoo benn dëgg Omar Sall dara xam ko daara xamu ko daara lenn lañ koy njortal xëy da xam na ko xamu ko mooy garabu cosaan ndax loolu mënuma ci at parce que loolu man jànguma ko xawma ko mais diine ji nga xam ne ci lañuy nab nabi moom Omar xamu ci dara Omar xamu ci dara wax leen benn wax boo xam ne wax na ko te mu du wax ba nekk dëgg maanaam masalan boo jëloon ci waxtaanam wii mu def waxtaanu reewande gii nga xam ne masalan mooy damay waxtaane sufiyanke yii nga xam ay murite ki bi yeneen i tarixa ñoom lan lañ nu ñoom nasaraan yi ñoo nuroo léegi nag yiñ nuroo laa lay limal nangam ñoom ñu ngi ko jëlee ci nasaraan yi nangam ñu ngi ko jëlee ci nasaraan di di dem nangam ñu ko jëlee ci nasaraan te yooyu yëpp doo fekk ci benn téere ñun la ci nasaraan yi la jóge de loolu mooy xalaati Omar sàll te lim naan ñu ko nuróo léeg day nekk mbir moo xam ne Sénégal rek la am wala boog soriwul lan la tasawuf bokk ak nasaraan ba koy jël ci moom xam nga waxi xamade yi waxi ñàkk yar dëgg dëgg dëgg ku ñàkk boo bëggee gis ku ñàkk yar ku réew boo ko bëggee gis dëgg dëgg xoolal Omar moom bu la rawee raw na la bu la rawee ñàkk yar moom raw na la moom dootoo gisati ku ñàkk yar nasaara daalliin mooy tomb sunu waxtaanu tey tashabbuhu suufiya bin nasaara daalliin nirale gi nga xamante ne diiney suufiya jëlee na ko ci nasaara ba nurug maa ngi laaj est-ce lii wax la ju nit war a taxaw ci réew mi di ko fi jàngale maanaam di ñu ko wax yi doomi senegaal yi toog leen ma wax leen ma wax leen suufiyanke ci boppam te suufiyanke boo ko waxee maanaam kenn du ci génn ci waa réew mi lan lañu nuroo ak ñi nga xam ne ñooy ay nasaraan am ñi bokkul ci diine lislaam lan la sufiyanke yi lan lañ nuroo ak ñooñu sa daane kon lépp li nga xam ne moom mi ngi koy wax sufiyanke yi ci nasaraan yi lañ ko jëlee te loolu amu ci lenn lu mu wax loo xam ne daa amub dalil de amu ko loolu laa tuddee saaga saaga mooy nga wax nit ki loo xam ne amul fenn fu mu tegee te muy lu ñaaw te moom bi muy tàmbalee xam na ne li muy wax lu garaaw lay doon aw saaga lay doon mu ne li muy wax dana nuru aw saaga dana nuru ay xas mais du ay xas dana nuru ay xas mais du ay moom xam na ne fas yéenewul sax wax lu baax moom mu ñëw ne daf ñuy xamal day xamal suñuy gone xamal jeunesse bi dégg nga lan la nasaraan yi nuru ak suufi te du caa génne nasaraan yi ñooy jël si de maanaam nasaraan yi ñoo am seeni mbir sufiyanke yi dem di jël ci seeni mbir yooyu nga xam ne du diiney lislaam ñu cay jël di indi ci diine ci loolu lañu loolu lañu saagaa ñun ñépp ñi nga xam ne moo xam ñoo nekk ci ab tariqa ñooy yore kurus ñooy sikkar ñooy leneen ak leneen di di màggale yonent ak yu bëree bëree bëri yoo xam ne neen yii yépp ci nasaraan yi la jóge maanaam lim ñu considéré ak ñi muy waxal te d'accord li muy wax mooy ñu ne ŋàmm noonu rek liñ nuróole li liñ jàpp ñoom mooy ñun ñii ñoo nasaraan yi daanaka ñoo yem amul lu ñu wuute ndax lim dafa ba lim lu ci fukk di dem loo xam ne ñoo ko nuróog nasaraan yi daanaka ñun suñ pratique li ñuy def amul lu ci nekk l'islam moom lii nag aw saaga la wax nag ku nekk war ngaa xam ne yow dañ laa attaqué dañ laa saaga dañ laa wax lu ñaaw te lu ñaaw loolu bu tege woon ci dëgg ñu xam ne sax yow dangaa defu toor wala nangam waaye lañ la wax dadul daray dëgg maanaam daa jegewul dara ci xam-xam sax nag waaw amul lenn lu ko lii ak téere li muy wax noonu xalaatam la bu nekk ci boppam képp ñoom ñooy ñi nga xam ni dañoo yéesal ba rey ay yonent laanatullahi alayhim yahud xeet lañ bu rey ay yonent yàlla ne buñ leen roy nasaara xeet la boo xam ni daa jéggi dayo ba ñu bokk ci ña nga xamante ni dañoo jël seen yonent def ko yàlla waaw alladina jaalu almasiha bnu allah ñu jël isa ne doomu yàlla la xam nga nag loolu fa la ëppal yem wax dëgg yàlla yàlla subhanahu wa taala amul saahiba wala walad yàlla amul soxna amul doom yow nasaara ñoom ñu ne yàlla am na doom kon maa qaddaru llaha xaqa qadri dëgg dëgg dayo bi yàlla yellool joxuñu ko ko yahud joxuñu yàlla dayo bi mu yellool ndax bokk la ci ñoom yahud tamit waxaat nañ ni Uzayr ibnullah jël nañu beneen yonent ne doomu yàlla la nasaraani masih ibnullah borom bi ne ay yéen a bon te bon li ngeen wax ñoom nag ñaari xeet yooyu ñu nekk seen diggante ñun dañoo war a nekk xeet boo xamante ni danañu màggal ga suñu yonent dinañu ko réyal waaye nag màggal gi ak réyal gi day dellu ca moom na mu ko defee mi ngi doore waxtaanam wi ci benn qaayida yàlla moo ñu def ñu nekk ummatan wasatan ummatan wasatan nag bañ ko nekkee dañoo nekk ci diggante yahuud yi ak nasaraan yi yahuud yi dañoo ëppal dañoo dañoo gàttañlu ci seen wàllu diine nasaraan yi dañoo ëppal ci seen wàllu diine ñee dañoo ëppal ba jël benn bi yonent def ko mu nekk yàlla ñële itam gàttañlu ci topp yonent yi ba rey ca ñennet rey ca ñennet waaye dëgga xam kan moo ëppal ci ñoom ñaar ndax nee na yahud yi tamit nee nañ Uzayr doomu yàlla la ñoom dañoo jël Uzayr itam def ko mu nekk yàlla ñee jël Isa def ko mu nekk yàlla kon ana ki ci ëppal ci ñoom ñaar ak i gàttañ loolu moo doon laaj bi cest moom noonu la tàmbalee waxtaan wi léegi li bëgg indi nag saxal ko mooy ñun ni ñu def ci yonent bi ñun nasaraani lay nurool maanaam ñun sufiyanke yi ni ñu def ci yonent xam nga loolu tegewul ci benn di xam nga ku ne la dama lay wax nan leen nan ngeen nuroowee nan ngeen nuróowee ba mu neex ko ñëw daan ne la léegi yow ni ngay màggalee yeneen dafa nurook ni ko nasaraan yi màggale mais nasaraan yi nee nañ mooy yàlla ñun waxuñu loolu foo ñuy tuumale léegi léegi ñaari xeet ku nekk rey nga ku nekk maanaam def nga ab yonent mu nekk yàlla léegi kan moo ci gën a gàttañ lu ak kat yu ëppal laa bëgg a xam man bëggu fanatisme mooy koo xamante ni bu ñu tuddee dara nga jooy nga yuuxu nga def loo xamante ni da ngay wuuteeg après su fekkee bëgg bi ñuy wax dëgg la bëgg ku bëgg dara da koy nuru loolu la olof wax waaw wala déet ku bëgg dara da koy nuru yaa qawmi tashabbahu fa inna fi tashabbuhi falaahu roy leen ndax kat ndekte moo nekk ci roy ki nga ñaata nit ñoo ni bëgg nañu yonent bi te ni yonent bi comporté woo dañ ko rusa comporté woo xam nga lii mooy jàpp benn mbir rek ni nii daal lañuy bëggee yonent bi yow yaa xalaat loolu yow daat ne léegi képp koo xam ne danga ngaa bëgg yonent lu ëpp lii ma ko bëgg yow danga ëppal maanaam kan mooy natt ëppal laa bëgg a xam man ak kan mooy définir maanaam mbëggeelu gu jaar yoon mooy lan mbëggeel gu jaar yoon nee nañ ñun dañoo ëppal ci bëgg giñ bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw bëgg bëgg yonente bi kon kan moo koy natt ba xam ne fii la war a yem fii daa ëpp loolu lañu war a xam ba pare door a ñëw nag ci léegi eh, eh, kan moo ëppale kan moo gàttañ ñun gaa ci sunu gisin kon dañuy jàpp ne ñoom ñépp dañoo gàttañ lu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ndax seenu màggal àggul ci ñu naan ay sayiduna muhammad ak di ko màggal ak eh, ak yu mel noonu seen bëgg ko àggul ci ñu labal seen làmmiñ ci julli ci yonent bi salaa sallam eh, guddi ak bëccëg maanaam seen waxtu yépp ñu def ko ci loolu seen seen màggal yonent bi àggul ci dara ji jooju seen màggal yonent bi àggul ñu bég ci bis bi nga xam ne ci la gane àdduna buñ nee bis sàngam la gane àdduna ñoom ñu bëgg ci bis déedéet duñ bëgg bis boobu bisub xeex la ba jant soo cest à ba jant soo danañ fexe ba kenn du bëgg ak di kontaan ci bis boobu ñoom seen màggal yonent bi àggul foofu seen màggal yonent bi mi ngi àgg ci lépp lu ñu waxal yonent yi salaay salaam su su leen dépassé rek ci ultime maanaam fi nga xam ne foofu lañ toll ci mbëggee su leen dépassé rek loolu ëpp na loolu wolowu lay tudd loolu xuluwu lay tudd waaye ku bëgg yonent bi da nga koy bëgg ba noppi daa ci topp sunnaam loolu ñëpp dañ cee dëppoo ba pare loolu amul leneen lu nekk ci tasawuf lu dul loolu xarin lillazi yuna bi ahmada qalbuhu xiyaadun an iddunya waliddiini yansaxu xaraamun alayka dahra in kunta saadiqan xayaataka an tulfa wala anta muslixu xaqiiqun ala man yaddaci loolu mag ñi dañ ko wax ba noppi yi ba noppi boo gënee topp suñu lay ci nàngam lañ gën a toppee lan la yonent digle lànk duñ ko def ba noppi daan ne dañoo bëgg yonent bi lan te Omar li ma lay wax lu mu la wax rek du nekk noona nee na yaa qawmi fatashabbahu xaw ma lan lu tarkib noonu ba taxaw loolu jubul ci arab yaa qawmi fatashabbahu inna tashabbaha falaaxu xaw ma lan loolu mënta jub boo ko doon tekk ci wolof doo xam looy wax ndax fatashabbahu maanaam nuru nuru leen dañuy indi ki ñuy nuru nuru mooy kan loolu fi wax wax bi kenn waxu ko fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kiraami falaaxu loolu la ñuy wax ñàkk bi ñun jigéen ñi dañ koy jël di ko def suñu parfum moo gën a neex misk yeneen di bi reetaan noppi moo ko bëggee def san nga koo def ci moom daal Omar moo war a nekk ab àttekat ci suñu diggante yonent san saa saa di ñu wax mbëggeel goo xam ne dafa ëpp ak gu yemamaay ak gi nga xam ne du mbëggeel te moom mbëggeelu boppam na ko mesurer moom na mesure moom mbëggeelam ci yonent bi fan la tool maam lan lay def wala mu koy wax wala mu fas ko cib xolam wala muy nox noxi cib xolam loo xam ne mbëggeel la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi nit ñi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko di ko di ko noyyee di ko xalaat di ko bëgg di ko tiitaroo mu nekk seen lépp amuñ lu dul moom xalaatuñ lu dul moom yaakaaruñ ku dul moom tagguñ ku dul moom eh, faalewuñ ku dul moom royuñu ku moom mu bàyyi ñooñu nag ñu nekk ci yoonu wujub booba xam nga saay-saay mënul weesu képp ku baax ku bëgg yonent bi nga ne ko du nii képp ku julli ci yonent bi nga ne ko du nii bërki démb waxoon na fi ne kenn du julli ci yonent ci beneen salaatu bu du salaat Ibrahima boo ko def du du du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñun suñ julli yëpp day naax saay kon ak yosam ak yosam ndax moom du julli ci yonent bi salaat ibrahimiya xanaa ci julli comme ñun nañ koy defee waaye ba muy tàmbali <clears throat> waxtaanam bii ak ba ca des ak boo ko jiitoog bii waa ji ñëw yëpp la muy jullee du nekk salaat ibrahim du nekk julli ci yonent bi salaat bi siixati maanaam moom ak ñoom ñépp képp kuy def lu baax jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo xam ak julli la moo xam ak barkeelul ci yonent bi moo xam ak ñaan ci barkeem moo xam lu mu mënti doon loola lu ñuy tere la ci seen kër ñoom nañ dimbali nit ñi ngir yàlla pour wax Omar wax naa leen ne lépp lu mu wax boo ko xadis bu bu ko waxee sax du nekk noona nee na ummu moom moo daan euh, euh, jël ñàkku yonent bi sallallahu alayhi di ko di ko def ci ab biteel te fekk yëpp mooy gone ci xam-xam gone moom bu waxee moom wax ji day nekk njuumte rek ummu sulaym yaayi anas ibni malikin ummu sulaym moom moo doon def loolu waaw barkeelu ci ñaq yonent moom loolu du ëpp la yow kay da war a osé wax ne yonent nangu nañu ëppal ci moom ndax nit ak wu ñaqam nga jël ñaq bi te muy nit te yow nee xam nit yonent bi nit kese la du leneen nit kese la comme ñun niñ nekk nit yuuxaa idée yi rek mooy problème mais yuuxaa kay xanaa du saasam ñaq ñu ne yonent bi saasa nit la waaw aw nit ñu jëlu ñaqam def ko ci biteel ah loo loola du ëpp ñu ne ñun ñemewuñoo wax ne yonent bi eh, loolu ak ëpp la ndax yonent bi gis na ko bàyyi ko ca <clears throat> yonent bi gis na ko bàyyi ko ca xanaa kon dara du ëppal moom ëppal mooy lu yonent gisul kon même su fekkee ne dafa tolloog la yonent ba defoon wala lañ defoon ci kanamu yonent ba suñu ko defee ñun te yonent fekkewu ko rek day nekk ëppal ndax yonent fekkewu ko kon ëppal moom ñu ngi koy natt ndax yonent fekke na comme déet ndax yonent xaaxtandiku na nit ñi war na ko loolu moom dug ëppal moom ndax yonent fekke na ko yonent ñaq na ñu jël ñaq ma di ko raayoo loolu moom du yéen yenent watu na ñu jël watu ba di ca xeex loolu du ëppal léegi ëppal mooy la yonent fekkewut bu yonent fekkewul tëdd ci barabam bu sell ba nga ñëw raay barab ba def nga lu ëppal ndax yonent santaane ko saari bu lo te loolu moo gën a tuuti la la ñuy wax ay lekk ay xaaxtandiku tëflitu yonent bi sallallahu alayhi naan leneen ak leneen ak leneen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak karawam desitu njàppam yooyu yëpp du ëppal ndax yonent da koo fekke mais miqyaas bi nekkul lu ñuy natt ba xam lii ëpp na ëppal de ndax yonent fekke na ko loolu am nattukaay la est ndax ñun lépp lu luñ def la saxaaba yi defoon ci kanamu yonent bi gën a rëy fop te yonent daf leen caa bàyyi ñun nag comme yonent fekki wuñu rek léegi bu ñu raayee barabam rek ëppal nañ bu ñu waxee yàlla yàlla nga ñu may nàngam ci barkeem ak ci teraangaam ak ci tedd ak jege gim la jege su boobaa ñun dañuy ëppal ndax lan yonent fekkewul lii ñuy def beneen bi dafa wax ne Ummu Sulaym daf daan jël affaire bi di ko boole ak euh, ay parfum muy ñun jigéen ñi dañ koy boole ci sunu parfum yi ñun jigéen ñi dañ koy boole ci sunu parfum yi am loolu ñëw na ci xadiisu muslim waaye ci même muslim tamit ci même buntu boobu te mooy baabu tiibu tiibu araqi nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu boo ko fàtte wa tabarruki bihi xadis ba nga xam ne mooy gën a leeral tabarruk bi nag yonent bi sallallahu alayhi wa ba ibnu ba nale sulaym nalee fa yonent tuddoon te yonent bu toogee day ñaq-ñaq bu metti même bu fekkee jamonoy sedd la mu jël ñaq woowa nal ko ci biteel yonent ba ci xadisu muslim bii ma la wàcceel yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko looy def nii maada tasnaina maa tasnaina ya umma sulaym mu ne ko ya rasulallah narju barakatahu li sibyaanina qaala asabti mu ne ko yow looy def nii ummu sulaym mu ne ko wallaay ñaq wii ma nal de te mu jóge ci sa eh, yaram wu sell wi dañoo bëgg yàlla def ci barke ci suñu gone yi maanaam ñaq woow moom gone yi lañ koy saafaraa yonent ne ko asabti li nga def noonu la noonu la ku fi am kawaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey masalan am nañu ko am ci jamono yu kii comme imam ahmad ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne dañ daan barkeelu ci karaw gi xam ne moom benn karaw de ci yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ci daan barkeelu ak di ko taf seen bët yi def loolu waaw yàllay tey fi mu toll nii te ñàkkul war naa am kenn jël ca kii booba karaw googa def ko ci saafara naan ko bu la fa Omar Sall fekkee wala kenn ci gaa yi wala ñu ko gën a mag bépp waxaa bi benn gëm-gëm bi noonu la dañ naan la yow li nga def dafa ëpp dangaa nga ëppal ci yonent bi maanaam lii mooy ëppal ci yonent bi mooy loo xam ne saxaaba yi dañ daan def lu gën a garaaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi saxal leen ca loola léegi kenn boo ko defoon ca gannaaw yonent bi sallallahu ci yonent bi yow da ngay far nekk ku ëppal ba fan la ñuy mesurer mbir yi dañuy mesurer mbir yi ci ne yeneen tax fekke da ko fekkewu ko loolu la ñuy nattee ak ëppal ëppal nees koy nattee ci fekkee ñàkk fekkee ëppal kay xanaa lu ñuy gis la xam ko rek yàlla yu yow nga wat ba mu seet bu ñu waxee nii dama bëgg yonent bi da ngay wax bëggoo sëriñ bi ne ba ci day wax bëgg ko ku bëgg dara nuru ko ku bëgg dara da nga koy nuru nga ni bëgg nga yonent bi yonent bi taaram mat sëkk yonent bi doon sol yére yéreem di romb dojoram fi ndoxu jàpp yam fa la tubayam di yam yow nga ñëw def ko romb te ne bëgg nga ko am na da ngay nax sa boppam ndax yonent bi laa budda ñu topp ko ci li mu bëgg ak ni mu ko defee ndax taar ci moom la yem civilisé ci moom la yem jekk ci moom la yem ñun ñëpp ànd nañ ñu yonent bi du kenn ci ñun ci taar ci lépp yaa Aysa nee ku ci sëpp soo réeroon sa néeg guddi bu yonent bi duggee nga gis ko comme bëccëg ndax leer bu ko yàlla may allahu akbar allahu akbar nee na sa pusoo réeroon bi di ko ci sa néeg gisoo ko su yonent bi ne tey day mel ni projecteur yaa daanaka loolu mooy tuubal nga tuubal ñi nga wuuteel ñëpp ku deful ne yow rek kooku moom bëggul yonent bi comme yow sa sa sa sa sa yére dafay dafay wàcc ba ci ba ci kii bi day gàtt lool léegi ku deful noonu kooku bëggul yonent bi comme yow say sikkim da koy sëqal bu baax a baax a baax ku ca cos dara wala mu wàññi ko wala mu wat ko kooku bëggul yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam léegi bëgg yonent bi mi ngi wàcc ci ab apparence su fekkee ne wat nga sa sikkim rek yow bëggoo yonent bi su fekkee ne dafa buubu rek te am na ku yonent wax ne ko yow bokkoo ci même sa yére day buubu mais amul problème taxoo may wax kooku moom bëgg na yonent bi moom bëgg na yonent bi dégg nga eh, ak borom xam-xam yi nga xam ne dañuy <laughs> wàññi seen sikkim wala ñu war ko ñépp kenn bëggu ci yonent bi sa xam nga loolu mooy yabaate ak xamadi dëgg dëgg dëgg mooy loolu nga natt bëgg yonent bi salaa salaam ci ay jëf yoo xam ne du fàtt ay jëf yoo du viole sharia maanaam gis yow da am gis-gisu lii dafa war am na keneen ku gis ne lii dafa sopp luñ sopp la waaw lépp luñ sopp képp ku ko deful bëggoo yonent bi moom Omar dafa gis ne wat si maanaam bàyyi say sikkim bàyyi sab sikkim mu gudd loolu farata la mais am na beneen borom xam-xam boo xam ne selon xadis yi Omar Sall wax Omar Sall sax xamul xadis maam ñi borom xam-xam yi wax laa bëgg a wax daal yi borom xam-xam yi wax loola dégg eh, moom luñ sopp la ko def mu mustahab wala jaiz waaw léegi kooku moom soppam yonente day dàqu ndax daa watub sikki moom donte su gisee ne lii min baabi listihbaab te bëri na ñu gisee noonu ñooñu ñëpp bëgguñu yonent bi ndax léegi nag xadis bii laa bëgg Omar firi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxiix Buxaari baabu maa yukrahu min laani shaaribil xamri kuy naan sàngara xanaa kooku moom moo gën a garaaw kii wat sikkim moom naan sàngara ak ku wat sikkimam kan moo ci gën naan katub sàngara ak watu katub sikkimam kan moo ci ñoom ñaar ku ci gën a bëgg yonent bi sax wala kenn bëggu ci yonent bi léegi kii daf doon naan sàngara te dóor nañ ko dóorati ko ci ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam yenent moo ko dóorlu ñu indeeti ko ne dafa naanati ñu dumaati ko ñu indeeti ko ne dafa naanati ñu dumaati ko benn waaye daat koy rëbb allahumma al anhu ma akthara ma yuta liñ ko fi indi saa yu naane ñu indi ko duma ko saa yu naane ñu indi ko duma ko ah yonent ne hee laa talanuuhu bu leen ko rëbb de wala ngeen koy ŋàññi fa wallahi ma alimtu annahu yuhibbu allaha wa rasulahu li ma xam ci moom daal mooy ku bëgg yàlla ak yonent bi tekkil ma ku bëgg yàlla ak yonent mi ñu lay dóor ci sàngara saa su nekk tekkil ma loolu yow ko réyal di ko gàndal xoolal porteleem teg portele yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xool dafa nuróo lañ foofu ngay xamee ndax bëgg bi ñuy wax dëgg la wala déet te yonent bi yemul ci bàyyi sikkimam mais dafay a ndigal dafa wax ni xaaliful mushrikin wute leen ak bokkaale kat yi yaani yéefar yi ñu ne ko ah mu ne firrul luha waaw akbar bàyyi leen sikkim yi aiful luha jàmmal leen yu ñu bu des nag xadiisu Aïcha bi mu wax toujours Omar de leen ko wax Omar bépp xadiis bu mu wax du nekk dëgg waxoon na fi ne boo demee ci mottu Malik danga fa fekk xadiis sàngam ak sàngam ma ñëw ne leen xadiis boobu amul ci motta waxuma amul ci motta de amul ci benn téere ci téere yi. xadis bi amul benn téere bu mu nekk ci téere xam-xam yi téere xadis yi du Sahih Bukhari du Muslim du Ibnu Maaja du Abu Daawud du Nasaayi du Tirmisi du kenn ci ñoom du Ahmad du Muwatta bi mu wax du keneen fen wu toll noonu lay fen moom fen yu mag yu tolloog jëmmam xadiisu Aïcha bii mu wax ni amul maanaam amul lii mu wax li mu wax buñ ko bëggee topp loolu amul Aïcha nee na ku pusa réer ci ñun maanaam ñun soxna yonent bi saa saam ku si sëpp sa réer guddi bu yonent bi ñëwee nga gis ko loolu mosul am loolu mosul am maanaam xadis boobu noonu ku ci sëpp sa réer ci ñun xam nga loolu man a fen mënul weesu loolu toujours ngay wax wax boo xam ne wax bi ci bopp amul yow yaa créé benn image wala benn wax waxin di ko waxee ku si sëpp sa réer ci ñun nañ moo wax loolu man xadis fan la nekk ku ci sëpp sa réer ci ñun bu yonent ne tëll nga gis ko li am mooy Aïcha dafa wax ne dama àbboona puso ci Hafsa di ci ñaw puso ba wadd ma koy seet di ko seet mënuma koo gis far yonent bi dugg si ma leeraayu kanamam leeral ma ma gis puso ba loolu mooy loolu ñëw na ci fiira moom ndax xadis bi wér na nag loolu Omar Sall gëm loolu maanaam wërul gëm ne lii xadis bu wér la maanaam ci nattukaay yi mu natte moom xam nga ñun ci xadis ak taarix ak yu mel noonu amuñ ci problème bu bari waaye comme ñoom dañuy wooteeg sévère ci ci xadis nangam diw nee na albani nee na wérut ak nangam ak nangam léegi nee na bi wérut amul isnaad ju wér ñëw na ci ay téere nag maanaam te bokkut ak li ma wax de xam nga Omar def ne ku ci sa pousse réer ci ñun lool lool moom du xadis yaay Aïcha nee xam nga fenal nga Aïcha fen wu rëy yaay Aïcha nee na te yaay Aïcha mosul wax loolu yaay Aïcha daf ne daa mos a réeral pousse daa mos a réeral pousse yeneen ci ñoom te loola sax wér naag wérul moom sa si nga am yépp nee na xadis bi wérul Ibnu Kathir wax na ko Albani wax na ko keneen ku dul albani wax na ko bëri nay boroomi xam-xam yoo xam dañoo dàq xadis bi wérul min jihatil isnaad dégg léegi yow fan nga teg li nga nettali noonu ci ci fan nga ko teg da ngay nettali noonu rek ci kaw wala da wax lu wér loolu wér man awma problème xadis bi man parce que mën naa am fu ma jaar am na nu may doxee ci xadis noo xam ne bokkut ak yow ni ngay doxe am na looy wootee ci taral nga xam ne xadis bi yow boo ci d'accordul bu amee dara lu ko xaw a damm rek wax waxit koo xam ne daal am na koo ko mos a jëm rek mën nga caa dàqub xadis yow kon nag xadis bii jël ko nga dàq ko bokkut ak xadis bi nga wax nag yow li nga wax du xadis loolu aw fen la du du du dara moom bi hablillah nasaara ëppal nañ ci seen diine jéggi nañu dayo lan moo tax ñu jéggi dayo dañu ne Isa doomu yàlla yemul foofu ñu ne yàlla am na soxna yemul foofu ñu ne yàlla ci boppam yàlla la Isa yàlla la Maryam yàlla la nga ne ah ëpp hada buhtaanun azim wax ngeen lu bona bona bon الصوفية غلوا في أن الله في كل مكان الصوفية غلوا صوفية yi tamit jéggi nañu dayoo ëppal nañu ba ni yàlla ngi fépp lu ngeen di dégg ci rajo yeeg wax yi yàlla mi ngi fépp du ngeen ko dégg ah ñenn ñoo koy wax ah nasaara moom ñett la ñu def yàlla suufiya def yàlla mal yuunul malaayin ku yées ah ñii ne yàlla ñett la ñii ne yàlla lépp la. ah wala man des fois bu Omar Sall di wax du ma ko bëgg a déglu maanaam du ma bëgg sax kenn di ma ko envoyé parce que am na fuy tool dangay dangay da ba mer bëgg dee te doo xam sax loo war a wax ak loo war a bàyyi waaw nee ñun yow nasaraan yi ñoo ñu gën ñoo ñu tane maanaam ñun ñoo gën a yées nasaraan ndax ñun dañoo wax ne allahu fi kulli makaan te loolu ko amul benn sufiyanke bu ko mos a wax benn sufiyanke bu mos a wax ne allahu fi kulli makaan amul sufiyanke yi daanaka ci achaira lañ leen di classé ndax daanaka ñi ci ëpp wala daanaka ñëpp sax illa qalilan ñoo xam ne ñii duñ ay achaar yi muy ñu ci ëpp wala xaalib aglabiya bi ñëpp ay achaira lañ achaira ñoom est ce que seen gëm-gëm mooy allahu fi kulli makaan wala loolu qawlul jahmiyati xam nga boo jàngut lu nekk ngay sañ wax ya yow nuroo moom da war a wax ne da war a wax ne ñii dañ ne isa yàlla la ñii ne diw yàlla la loolu nga waroon wax loolu mooy niroo mais amoo looy niroole isa yàlla la amul ci jullit ñi ba mu jeex isa yàlla la ñoom ju sufiyanke dañoo waroon wax ne yonent yàlla la yonent bi la ñu waroon wax ne yàlla la pour ñu ne ñaari gëm-gëm yi ñoo niroo wala waxuñu sax yonent bi nen nen nañ ne daal diw sàngam yàlla la sëriñ sàngam yàlla la nga xam ne lii daal ak ñuróo la waaye kee nee na yàlla kii nag moom nee na kenn du yàlla moom yàlla rek yàlla ñun sufiyanke yeeg yëpp <laughs> loolu loolu Omar saxalal saxalal nañu ko ñun gëm nañ ne kenn du yàlla yàlla rek yàlla waaye léegi est-ce que ñoom loolu lañ gëm <laughs> luñ lan lañ ñuróo ñu nag ñoom kon dé mu ne ñun dañoo gëm ne yàllaa ngi fépp wante yàllaa ngi fepp bu waxee kan moo ko wax sax ba pare waaye xam ne du waxu suufiyanke yi waaye wax jëmmi wax ne yàllaa ngi fépp mooy dafa am keneen koo saxalal yàlla wala moom kay yàlla nga wutal ab place ne ma nga barab sàngam am keneen ku ne déedéet nekkul barab sàngam ci barab yépp la nekk waaw ci barab yépp la nekk sax kan moo ko mos a nañ ko bind ñun li achaire yi wax loolu la wax ndax ñi fi nekk ay mutasawif ñëpp ay achaire yi la ay achaire lañ nañ ñu wax lan la achaire yi wax ca loola waaye buñ ñu wax waxe keneen sooy niróole da nga naan diw ak diw ñoo niroo diw day watu diw day watu waaye diw day watu diw day cos karaw gi daf koy xaw a peñe xam nga loolu dul benn niroo kii nee na diw yàlla la kee nee na moom kenn du yàlla moom yàlla rek kay yàlla léegi kan booba la niroo ba tas pour wax la ne fii ba fu muy niróole di dem ba mat fukk di di di di continuer lépp ay fen la maanaam amul ci lenn loo xam ak niróole la

ñu ne Isa 24 décembre la judd ñu ngénte ko 31 décembre lañ ko ngénte loolu la ñu wax suuf ya ñoom ñëw ah démb lu ñu lu ngeen dégg démb lu ñu doon wax démb ah màggal ko ah ñoom ñoom kiit kiit ah ñee dañoo màggal juddu seen yonent ñun ñu ñëw màggal juddu suñu yonent te ñun xoolal xoolal ñun li gën a dangereux mooy même date yi dañ ciy juum yonent bi judduwul le douze awal judduwu ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu saxut saxut ñi gën a daif ci taarix ñoom ñoo ko wax saxul de ku mu neex dellul gëstul ba nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi bapt li dëppoo ak mi ngi nekk juróom-ñeenti fan ci shahru rabiul awal mi ngi dëppoog 22 avril 571 yonent bi le 9 avril mi ngi juddu le 9 ci shahru rabiul awal le 9 la juddu juróom-ñeenteelu fan ci weeru rabiul awal muy weeru gàmm mu ngi dëppoog 22 bu fekkee dañoo jël taqdimul milaadi al awal le 20. avril lay doon bu dee takbiirul milaadi ak saani le 22 lay doon 571 kon même sax date bi ñu jàpp di ko di célébrer dañ ciy juum dañ ci juum. léegi nag mu ñëw ci beneen kii boo xam ne moo gën a reelu gën a xorom mooy màggal juddu yonente bi sallallahu alayhi wa ci weeru gàmmu ci fukki fan ak ñaar man xawma ku bind wax ne dañ koo jële ci nasaraan yi man waxi mbedd man duma ma ci wax diw wax na ko ca baam baag diw toog na ñu téye kii ko ci seen té seen chaîne yi nekk ci senegal gi mu ne dañ ko royee ci nasaraan yeeg diw ma ngi koy wax ca xut man waxi yooyu ma dama ci dul du ma ci fan lañ ko bind ci benn téere boo xam ne dafa wax ne nasaraan yi ci ñoom lañ jële lañ jële feetal ab yonent wala màggal juddub yonent lu Omar la ko wax moom du waxi nit loolu kenn wër Omar nee na loolu gisaguma sax kuy def loolu waaye xëy na jamono dana dem ci kanam nit ñi danañ layoo Omar Sall man xam naa loolu senegal moo yàqu yàqu goo xam ne ñëpp ay mën a valable pour mën a nekk ay layuwaay léegi amul fenn fuñ bind loolu ne ci nasaraani lañ ko jëlee waaw ci nasaraani lañ ko jëlee loolu moom waxu Omar Sall la ak ku mel ne moom ku tolloo moom niveau ci xam-xam rek yaay wax loolu Omar Sall ne ñun sunu màggal gi ñuy màggal juddu yonent sa sa ñi ngi ko royee ci nasaraan yi ñi ngi ko royee ci nasaraan yi roy goo xam ne maanaam yi muy wax ne ñoo ko royee yépp de amul fenn fu muy waxee ne fii mo fii mooy maxal roy gi de maanaam fii lañ mën a sukkandiku ne roy gi fii la jóge diwa ko indi fii diw nangam ca ñee la ko jële loolu amul maanaam ñi ko royee ci diw daal xalaat rek la ci am da koo xalaat nii rek mii mais na waxu Ahmed Lo ji mu doon wax ne Ousmane Dan Fodio mi ngi royee ci Mouhamed Ibn Wahab foo ko teg mu ne daa aji woon ñu ne ko ajiwut de mu ne waa ajiwul mais am na keneen ku aji waa kooka ba mu ajee moom lu xew mu ne waaw dase naa ne ñu ne tur diw moom tasewul ak diw nga xam ne da ngay ka ñëpp nii rek doo mën a am foo taxaw nasaraan yi lañ jëlee gàmmu lan mooy dalil bi amul ba noppee mu wax li amul ci benn téere mooy wax ne yonent judduwul ci ci euh, nu mu tuddati douze ci fukki fan ñaar waaw li mu ne loolu ñi gën a néew ñi gën a daif ci taarix ñoo ko <tsk> man damaa xamul lan moo tax wahabi di fen te nekk ay mag léegi ay ci waxi jàmbur ay sàcc baxsi jàmbur ay wax waxi jàmbur ak wax lu kenn waxul xam nga ameloo mooy jéeg-jéeg ne la jumhurul ulama nee na lii te jumhur safaan lañ wax mooy li Omar Sall wax fii jumhur ñoo wax ne jumhur ñoo wax ne ci fukk fan ak ñaar la loolu moo gën a siiw mu ne loolu ñi gën a daif ñoo ko wax ñi gën a daif ñoo ko wax xoola waxi ñàkki teggit yooyu ñi gën a daif xanaa kon borom xam-xam yépp dañoo daif ci siira moom doo wax ne jumhuur ñoo ko wax man naa am àndook ñoom nga wax ne ànduma ak ñoom waaye nga wax ne li li wiir ba dapt yonent neuf ci rabiul la la la kii loolu amul ci benn téere loolu boroom xam-xam ba ko wax sax daa yàggut benn borom xam-xam ko wax de borom xam-xam ba nga xam ne mooy Mahmoud Bacha nga xam ne ci wàllu fëlëg lay lay yëngatu moom moo def ay calculam def ne yow mu lis ni daal li war a tombeel mooy euh, mooy bisub juróom-ñeenteel ci rabiul awal mooy tombeeg yowmal isnayn ci lim xam ci ilmul falak jeex na bu weesoo fii amul feneen amul feneen te kooku 1885 la faatu maanaam xalaat bi yàggut te sukkandikuwul ci xadis ci këlkinu falak la Omar Sall ndax ci lii nga sukkandiku pour wax ne bi dabt fii la wala fan ndax loola borom xam yi jiitu waxuñu ko xataa albani mu mujj mi waxul loolu maanaam bisub juróom-ñeenteel kenn da koo tuddul ibnu kasir daanaka indi na ci lu bëree bëree bëri waaye bisu juróom-ñeent la kii waxul ne benn borom xam-xam mos naa wax loolu waxul ne benn borom xam ñi wax dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gën a àdduna ci ñaari fan ci weeru rabiul awal loolu am na ñu ko wax ibnu abdul bar bokk na ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen am na ñu ne ci juróom-ñetteel juróom-ñetteel loolu am na am na ñu wax ne ci fukkeelu fan loolu am na am na ñu wax ne ci fukkeelu fan bi ak ñaar loolu nag mooy almashhuru inda al jumhur daanaka ñi ëpp ci borom xam-xam wax li ëpp ci borom xam-xam yi lii lañ wax ci téere yépp léegi juróom ñeenteelu fan la gane àdduna loolu moo amul ci téere yi am na boroom xam-xam nag bu dee fi gëstoom ci wàllu ilmul falak wax ne daal affaire bi moom mi ngi tombeeg juróom-ñeent fan juróom-ñeent fan mais loolu du xadis te yi jiitu yëpp xadis la yi day wér yi wérul yi nangam ak nangam waaye mu ne bi dabt lool la loolu dara du ci dëgg ndax amul benn xadis sax bu wax ci juróom-ñeent yi na ko wax boo tax ba ñuy wax juróom-ñeent daf caa bokkut te lañ doon wax ci xadis nag xanaa doone xadis bi ngay jël daat koy watee nag jël daat koy daaneel jël waxu aalam falaki aalim falaki daat ko cay teg li am ci faatu yonent li am ci juddug yonent sa sallam moo am ci faatoom nag sallallahu alayhi wa sallam moo di ne fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm am na ay wahabi yuy fen sax di wax ne loolu mooy li nga xam ne kenn werante ci loolu du dëgg waaw werante wuñ ci ne rabiul awal la la faatu waaye bis bi nga xam ne ci la faatu ci rabiul awal nag loolu werante am na ci jumhur ñoo wax ne douze la rabiul awal am na ñeneen ñoo xam ne bis bi njëkk ci rabiul awal am na keneen ko xam ñaareel fan ci rabiul awal am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye jumhuur moom ñoo wax ne fukki fan ak ñaar ci rabiul awal naka noonu jumhuur ñoo waxoon ne fukki fan ak ñaar ci rabiul awal la àdduna loolu mooy mbir juróom-ñeenti fan kenn waxu ko léegi lii fan na ko Omar jëlee te day toog di wax ay nit c'est-à-dire ala anna mi ngi wax sunna su leer nañ di wax li yonent wax te li muy wax ay fen la mag mu toll ne moom ci at nekk noonu gone ci xam-xam ñeme yàlla ñeme nit ñi itam ñeme leen attaqué saaga leen wax leen lu ñàng kii am na beneen jógin beneen wax beneen jaamaarloo bu waroon am sunu diggante ak moom bu dul lii bu dul toog di ko tontu léegi nag euh, xam naa dañuy taxawandi foofu ndax xam nga ko wax ñeent fukki minit te fanweer yaag juróom-ñeent yëpp daanaka dara du ci dëgg daanaka mënee su ko topp ba jeex waaye wala boog mënee su ko topp ci benn taxawaay waaye incha allahu dañu ko danañ ko danañ ko kiiwaat ci beneen taxawaay incha allah euh, ñu ngi leen ziyaar bu baax ci àjjuma gi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi taxawal fii ala ala amali maa ngi toog fu jege di leen déglu wahaab yi fi tàllalu tànk dama ko naan tëb pit takk wahaab yi ca xaj lañu wax ngeen dem ku ci tàllalu làmmiñ naa ko dog kuy montage nag ni lëndëmal teg làmmiñ yu kenn xamut loolu nag mooy seenub cër wasalaamu ala man ittaba al huda